bàyyi ko fi asa an yanfaana aw nattaxiduhu waladan man ak yow amuñu doom ba ko fi aman na mu jëriñ ñu wala yàlla moo ñu nar a jox doom ndax kii kenn du ñëw ne ma moo ko jur mu ne kon baax na ñu bàyyi Moussa ci kër gi ñuy wut nag ku ko nàmpal jigéen ji ñu indi rekk mu lànk magam bu jigéen ñëw ne leen xanaa du ngeen ma bàyyi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 suuf si nag copte yi africains yi ñoo ko moom waaye israéliens yi ñooy bay tool yi ñoom la ñuy liggéeyloo liggéey yu metti yi mbir mi naqari Moussa Moussa di ci xalaat di tàmbalee dajale ay gune di wax ak ñoom nan lañu war a def ay gune ci bani Israël ba mën a dindi lii ba nga xam ne am na mbooloo mu ko topp nag te moom ma ngay jóge ci pale bi kenn mënu koo jàpp ndax doomi na la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 Inyangi ngi wëgg seen gàtt yi di wëgg seen jur gi mu gis ñaari gunay jigéen ñi nga beru toog mu ñëw ne leen waaw yéen ma xaat bu kuma luy seen mbir yéen mu ne ñun de la nusqi hatta yusdara ria wa abona cheikhun kabir ñun duñ mën a nàndal ba ta sàmm yi jeexalee lu des ci mbalka mi rek suñu gàtt yi naan ko ndax jigéen lante sun bàyyi dafa màggat ba mënul def dara Moussa yërëm leen daal di jóg wëggal leen ba seen gàtte ya màndi mu ne dem leen ñu dem Moussa wéeru ca ca garab ga nag am na ñaari fan walla ñetti lekkul mu daal di yëkkati loxoom daal di yàlla la ma anzalta ilayya min xayrin faqir loo wàcce woon fii ci man tey ci lu ñuy lekk day soxla naa ko yàggul kenn ci ñaari gune yi ñëw nag ala istixyaain di dox doxu kers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 nga naan ma day jor càmmoñ ba ñu yegg loolu laa tànn ñu def noona ba yegsee ci yonte yàlla Shuaybu Shuaybu ne ko waaw faqsusil sa nettalil sa mbir Musaa di nettali fu mu jaar ak ñi mu bokk sët yi mu yi xeet yi mu bokk dëkk bi mu juddoog la nekk ak ba li ko dawloo Shuaybu ne ko laata taxaf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 Moussa di sam nak ba mu ñëwé fekk doom ji def ne ko woon jànq bi def ne ko bàyyi day ku man ku man nek sam la mu ne ko lu tax nga ne man na nek sam mu ne ma xam ne maa xam ne critères yi ku woor ku ru sacc say gatt teyit mu nek ku deugar ku rabi allah bi ak sam si di ragal mu ne lu la xamal ñaari tektal yoy ci mom mu ne ku woor la ndax sama seri bu ñu nawé sax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 wala mu ragal yàlla Moussa ne waaw yàlla maa ngi dem waaye mayit am na ay soxla dinaa la ko wax Moussa jiital jabar ja jabar jaa ngi ëmb jaar nañ yoonu Misra traversé nañ euh, jabaru tóor ña nga ca tóori Sinaay ba ñu demee ba tóori Sinaay ci wenn xur muy waadil muqaddas bañ fa yeggee ci digg guddi jabar ji dal di am doom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 سيدنا سفرة أمان نبو ما فدمي لعلي أتكم منها بخبر ما عندي فصلو ولا بو بشيها بقبس ما عندي فبجم لعلكم تستلون نخنجين من جارو ولا بو أو أجد على النار هدى ولا ما فك سفرة وكما يجبنت لولا نغمى لم فنرى فك موسى جمنا سفرة وما يجي بير قروي سفرة وينكي جن غرب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 والقملة والضفادع والدم التمصبة يويو أي آيات لا يمي وخنان أطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم موسى dëdd nag ñëw ci doom ji dal di ko yenu ànd ak jabaram am na léegi lu dox diggante moog jabar ak doom mooy yegg si ne ci boromam loolu safatu ko mu ñëw ak ñoom mu ne yàlla nag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 jibril fel loxo ba mu jël safara sa seex ko làmmiñ wi daal di euh, fasu def gomba mu wéree nag mu dootam taq loolu la saa yu nettali ak ñu bari ci mu fassiroona yi wante docteur Najaar ak ñu bari ci mu fassiroona yi ñi nga xam ne ñoo mujj dañoo teggi loolu dañoo wax ne du loola li xewoon ci Moussa mooy Moussa gune la woon làkku cosaanam Israël la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 am na bi yenen matières yiñ ci diw bàyyi ko rek mu ni konkutoom mel ni géej ju ko fale jamono ye ya ci gannaaw bo demaan da nga gis euh, da nga gis firaw na benn bi benn baaraamu tank bi sax der waangi xar ba nga seen yax bi ni muy wexé waye legi dafa am benen masque buñ ci tek ba nga xamne do to seen yaram wa na mu nga gis seen kawaru bop bi mo ngi euh, tas ba euh, takatul ci bop waye mo ngi jore sa ci kangu bop bi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 ulqiya daanoof sanniif mooy daanuloof jabar kariya sajidina ñi di way sujud xaaloo ñu nga aman naa nañ bi rabbil alamin borom bindeef yi moy rabbi musa, borom musa ak Haruna qala wa firawna aha amantum bihi gemgenko, ngeen ko qabla an azana njëkk may digal lakum ñeel leen inna haza naka kii naka lii la makrun pexe la ko fexe woon ak fil madinati ci dekk ba li ngir ngeen mina eh, ci ci misra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 lu mooy danoo gëm bi ayaat rabbina ci alquran yi suñu borom lama jaat naa ba dikk dikkalee ñu kawteef ya rabbana yàlla afriq yal nga sotti alay naa ci ñun sabran ak muñ ba bu ñu firaw nay daajit duñ weddi wa fanaa yal na nga faat ñu rek muslimin ñi di way omatu ci yàlla nag wa qaala wax almalawu mbooloo ma min qawmi firawna ñu ne waaw atazaru yow firawna ndax da ngay bàyyi Muusa wa qawmoog ñi tam ñi rek li yëf doo ñu yàq filaar di ci suuf wa yasaraka mu bàyyi la wa alihataka mu bàyyi sa yàlla ya qaala mu ne déedéet du ma leen bàyyi sa nu qattilu danañu rey am naahum seen ñu góor ña wana sax yi nu bàyyi ni saahum seen jigéen ña way naa ñun qaahiruna way not lañ fawqum seen kaw qaala wax Musa li qawmi ñeen itam ñu ne istaino dimbandiku leen billaay ci yàlla wasbiro muñ leen inal arda naka suuf sii lillaay ñeel na yàlla rek yori soi moo koy donnale man yashaaw ko neex من عبادي تي جامم ولا عاقبة مجد للمتقين نيال نيال رغل يال قالوا نيو ني وزينا نيو ني لرف نيو من قبل أن تأتينا نيو نيو يو موسى نيو بيغا نيو وغوت فراو نيو لر وين بعد ما جيتنا بيغا نيو يهتم بوك تي نون يال يو ني ليت فراو نر نرك دي لر قالوا موسى ني بايا عصا من ربكم سين برم أن يوليكم ألك عدوكم سينم نون يال من نكا ألك ليغي ويستخلفكم مو وطلين في الأرض كسوف فينظروا yàlla seet nag yéen it kay taamaloon nan ngeen di def nag buur ne wala qad axadna jàpp nañ ala firawna bi si nii ne ca adiya wa naqsin fa at yu bekkoor ya wa naqsin ak wàññeeku mi ne tamaraati ci meññet laaloom ndax ñoom ya dakkaroo ñu waaru fa ida jaat hum dem dikkal na leen alxasanatu lu baax xaaloo ñu ne lanaa ñeel nañu haasihi lii noo ko yelloo wa in tusibhum ndem jot na leen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 wal jaraada ak njéeréer la wal qumala ak walga wa dafadia ak mbott ya wa damm ak deret ja yépp ayaati na ay kawtéef la mufassalaati yi ñu teqale fastakbaroo ñu rëy rëylu wa kaano ñu nekk xawman diw nit mujrimiina ñoo xam ne def ko ci bàkkaar lañ nanguwu ñoo gëm wala maa waqaa waaye ba tabbi alim ci ñoom rijisu mbugal ma xaalu ñu nga naan yaa Musa ud'u na nga ñaan la naa ñeel ñu rabbaka sa borom bi maa aahida calam miinal na la ka yendek fa yow la in su fekkee uññi nga an naa ci ñun rijza mbugal mi dana lanu minan na danañu gëm laka ñeel la wala nursilan na danañu boyal maaka ànd yow bani israil fala maa kashafna yàlla ne ba ñu uññee anum ci ñoom rijza mbugal ma ilaa ba cib dig hum ñoom baali xoo way jot lañ ko isaahum ci bettal yéen ku ñu ngay firi kóola réga fantaqam naa moo taxit nu fayu minum ci ñoom faaxaraq naa mu ñu labal leen fil yemmi ci jukk ga bi annahum ñoom kadda boowee dinañ bi wa kaanoo nekk bañu suxé nu doon al alqawma nit ña lajina ñi nga xam ne kaanu nañ yustadafuna defi doya dal leen ñu doon al mashariq al ardi ci penkup suuf moy moy noria wa magariba ci sow moy égypte jëm afrique ti bi nga xamné baraknaha baarak barkel nañ fiha fafale wa tamat matna kalimatu rabbika baati sa al husna njek ala bani israil bima ma ngi ngir li ñu muñ wa damarna alak nañ ma kana la nekkon yasnaul def ko firaw wa qawmu ngi itam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 ميقبا وكلمه وخي قربو برام قال من ربي الله أريني ون منك أنظر إليك ما قال الله موسى نانا يالا لي غي قال مو سي ديس اندي نا نك بروبليم بو خامني بو ري لا بروبليم جيس يالا كوكو مسار خلاف لو جدال وتعارض النصوص بين العلماء كان منو كو جيخال الحجازي نانا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 bi quwati katan modi gem wa amur digal qawma ka ko saw nit yaa xusoo ñuy japp bi asan ya gin jarafet sawrikum dina won len daral fasiqina kër ñi nga xamne ay fasiq lañ buur ne sa usrifu dinaa soppi an wali samay kawtif le lazina ñi nga xam ne yatakabbaruuna danañu reey reey lu firad ci suuf bi xeyril haqq ci la du dëgg wayen yaraw ndem gis nañ ku laayatin bépp kawtéef laa yominoo duñu gëm biyaa ci mom wayen yaraw bu ñu gisee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 ولا يهديهم دلين جبل سبيلا بين يون اتخذوه هو جاب نينكو وكانوا نكني ظالمين دي ويتون ولا ما سخط بدان لفي في ايديهم سن لوغو بيغا قمينه نغو دانونا موسى علينا كو يقكو وراو ني جيسني انهم نك نيوم قدلوا رير نين قالوا نيغي نان لا لم يرحمنا ندم يرمونو ربنا سني بروم ويغفر لنا مبالني لنكونن دانو ني نك من الخاسرين تي واي بيرتيا ولا ما رجع بدلو سي موسى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 ابن أمة إيه وسما دومين داي إن القوم ناكنينيا يتضعفوني دايا دل نجمة وكادو جيجي ونن يقتلوني درايما فلا تشمت بل نوكو بيكمن على عدان نونيا ولا تجعلني بل دفما مع القومي ما عندك نينيا الظالمين نجي دوي توان قال من ربي يل أغفر لي يننغ بالم ولي أخي عكس ما بك وادخلنا يننغ دوغلني في رحمتك كي وانت يو أرحم الراحمين يا غنا يرم ñepp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 law siita bu la neexoon alak tawum nga alak leen min qablu ci jëkk wa iyaay ak man naa moo tax dug ñu dag ñuy alak bi ma faala ci bàkkaar bu def na ko su faa way desee xel min naa ci ñun in hiya déet lii illaa fitnatuka lu may la tudd lu ngay réeral biyaa ci moom man tashaaw ku la neex wa taa ji ngay man tashaaw ku la neex anta yow wala yu naa yaa ji méngoo suñ mbir sax fi la naa yàlla nga baal ñu warxam naa nga yërëm ñu wa anta yow xayrul gaafirina yaay ngeen ji way bale waktub yàlla nga bindal naa ñeel ñu fi hadihi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 الذين نيغا خامني كاي يتبعون نيغا يتبع رسول يعني الله ينتبي صلى الله عليه وسلم النبي كدب ينت الامي كومون البند سو بند دوكو من لير لولاي امي ماي الا تر الذي كيغا خامني يجي دونا و داغن فككو مكتوبا مود لين بند اندوم فنيوم في التوراه اك الانجيل يامرهم مولين دي ديغال بالمعروف تي لباق ويناو مولين دي تري عن المنكر تي لبن ويحل تموي داغنال لهم نيالن الطيبات ويتاي ويحرم موي حراما عليهم ci ñoom alxabaïsa yu bon ya wa yadau muy sippi anum ci ñoom isrom seen ak diis wala axlaala ak gax ya moo di tënk te yi nga xam ne kaanat nekk na alim ci ñoom fa la ñi nga xam ne amanoo gëm nañ bii ci yenente bi wa azzaruhu ñu ñu dëgëral ko wa nasaruhu ñu dimbale ko wa tabaau ñu topp annoora leer ga lazi gi nga xam ne moom si la wàcceef na ko maa wa ànd ak moom ulaayika ñooñu hum ñoom almuflixuuna ñoo di way texe ëllëg ca àlaxira ca àlaxira ñoo di way texe yaa ayuha annaasu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 allazi ki nga xam ne yuminu day gëm billaay ci yàlla wa kalimaati yi ak i baatam wa tabahu toppaleen ko laallakum ndax yéen tax doon a ngeen mën a ngeen mën a jub wa min qawmi Moussa nekk na ci niti Moussa nag ummatun aw xeet yahduuna ñu mën a jub bil haqq ci dëgg gi wa bihi ci dëgg yaadiloona la ñuy yaadiloona la ñuy attee maanaam la ñuy maandoo wa qatanaahum ñu daggaleen ñoom xeetu Moussa itna tey acharata fukk ak ñaar asbaatan ci ay sët umuman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 ban jàngoon ca gannaaw ci suratul baqara mu yàpp ay picc ak i gàttu noonu lañ fa nekkee ñeent fukki at gannaaw ga nag ba ngëlam li jeexee ñu ne sonn nañ ci lekk yàpp deseero gàttu sonn nañ ci jox ñu min baqliha wa qisaayiha wa foomiha wa hadasiha wa basaliha loolu lay wax ne wa waxaynaa ila Muusa id istasqaahu ba sàkkoo nandalu ci moom qawmun itam ña ñu ne ko an eey adrib dóoral bi asaaka ci sa yed wa alxajara xeer wa fan bajasat ball minu ci moom itnata asharata fukk ak ñaar aynan ci sewnde xadaa li ma xam na kullu unaasin bépp nit masrabahum seen naanuwaay wa dalal naa keral nañ alayhim ci ñoom alxamaama niir wa wa anzal naa wàccee ci ñoom almannu ak salwa muy taran jabil ak tayru sumana mannu moo ay gatu salwa mooy yàppi ay picc na ne jalaale ni ne yàpp gëment ku lekk leen min tayibaati ma razaqnaakum ca way teey la wërsëgal nañ leen ko wa ma zalamuuna tooñuñ leen walakin waaye kaano nekk nañ yazlimuna di tooñ anfusahum seen bopp wa is qiila ba waxeef lahum ñeel leen uskunoo dëkk leen haadihi alqaryata bi la dëkk ñu ne mooy Quds Jérusalem wa kuloo lekk leen minhaa ci dëkk bi haysu shi'tum fu leen neex wa quuloo wax leen xittatun dañuy ñaan bakaar bakkaar udxuluu dugg leen albaaba bunta ba sujjadan mbiroom ngeen di way sujjoot ndax fir ñu baal lakum ñeel leen xatiyaatikum seen i bakkaar سنزيد خالص نيو دلي المحسنين واي رافتالي فبدل الصبي لذين نيغا خامني ظلمو توج نن منوم تي نيوم قولا واخ غير الذي جمعي ديغا خامني قيل واخيف نكو لوم نيال لين وقت وني صبي لو بوكلا لو نيك دغ رك مصيبه فك لين تي موتا نيوم ني بلانك كو فارسلنا ني يوني عليم تي نيوم رجزن مبغل من السماء الى السماء بما كانوا تي لي نكون يدلمون دي دي توج كو مو جيب كيب كو باغني top ci ay ndigal lay wax mu ne alum laaj leen laaj leen anil xariyati ci wa dekk ba moy ban wa dekk waa aylata dekk bu ñaan aylatu ñay niti musa yi ñu waxoon ne besub gaawu nañ ko jaamu yalla buñ ko nappi ñom ñu nappi ko ñu soppi leen ay golo lool lay wax ne képp ku baña top ci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 ودارو كرغا الاخره غدا جي مج خير موغن للذين يال نيغا خامني يتقون دنا نغال يال افلا تعقلون كنا امولن قل والذين نيغا خامني يمسكون نيغا جاب بالكتاب جي تيري واقاموا ني تخال صلاه جولي انا ني يال لا نضيع دني سانك موك اجر المصلحين يالا نيغا خامني دني دني يوينال وايذ نتقنا فاتلكل بنوي يكتي الجبل دجوا فوقهم سين كو كانوا دانا كمام دولتو ناو نير لا موام نيني لين سجود لين يكتيو قير موتين بني إسرائيل نيني كو سجودو مدال كي سكو ودانو ني جارتو ني أنه ناك دجوي واقعون أجي تابيلا بيم تي نيوم خودو جاب لين ما آتي ناكم لجوخنا لين كو بي قوتنا كتن مودي گم وذكرو نغين تدو أكا جنگ ما فيري نكي جي تيري بي لا لكم لغيين بون تتقونا نغين من رغل يال وإذا خذا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 جلي صلى الله عليه وسلم والسلام إن لله تسعا وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر من دليك الله يمشي الصبور ما يسمع الحسنى من واي بلن كو جنگل دي ود يينن تور ولله نيل يالا على اسماء الحسنى يدي وي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 wala dina ñi nga xam ne kaddabu weddi nañ bi ayatina ci suñu alquran sana tadrijuhum danañu jey leen min aytu laa yaalamuuna ba fu ñu xamut wa um lii danaa muñal lawum ñeel leen inna kay di nak sama dogal ndax yàlla du fexe matinu lu dëgër la awal ma yatafakkaroo ndax dañoo xalaatut maa bi saahibihim nekkul ci seen àndaale bi min jinnatin benn sa dum jinne in huwa déet moom illa nadirun lu mooy muy aji waar mu binin ku daaji bir ji waare awalam yanduroo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 lu nek yàlla ak diwa koy sam yàlla ak diwa koy wattu lu ne ñu dugal ko ci jaala lahu shuraka fi ma ataahuma fa taala jambana lahu yàlla ama yushrikun ci la dañ koy sakal morom ay yushrikun ndax dañuy bokale ma lo xamne la laa du bind cheyan dara wahum te sax yuxlaquuna def na wala yastati'una duñu man lahum ñee nasra ndimbal wala yansurun duñu dimbale sax anfusahum seen bopp wayen te daawum bo woyé xeram yi ak lépp lu dur yàlla ci ñu diko jaamu soko woyé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 بورني ويزا قريا ندم جانغليفنا ندم جانغيفنا القران والقران فاستمعون نين دغلو لو جي واخو يال وانستو نين دغلو كو قل موي نين قراولو لعلكم دخ ين ترحمون دي لين واذكرت دل ربك صبرم في نفسك شي سبب موي بو نيك يو دال ديل فاتليكو يال تضرعا nga nek di aji toroxlu wa khifatan nga nek di aji nebu wa donal jahri nan